li nga xamante ni moom moo la moo la poussé nga dugg politique euh, c'est de gérer cité mais est-ce que c'est de gérer la cité boobu noonu est-ce que yéen yéen a ngi euh, bi population bi maam nu mu waree. loolu moom dama lay dama lay dama lay bàyyi parce que yow. Mhm. yow Wack TV moom yaakaar naa ne mu ngi topp suñuy activité politique au niveau de la commune de Wakungul et en dehors de la commune même. Mhm. Wack TV moom yaakaar naa yéen euh, xam ngeen lu ñuy liggéey ci commune bi. ñun à travers notre responsable Moustapha Junior Thiam que je salue encore au passage di saluer aussi également euh, suñu responsable yi nekk ci biir commune bi yëpp euh, ku ne xam na ni mhm. la SDD yon naataange euh, dirigé par le secrétaire général monsieur Souleymane Ndiaye mhm. le président Souleymane Ndiaye ku ne gis na ne du toog toujours mu ngi jege askan bi mhm. mu ngi xool askan bi lan mooy seen besoin donc nag à la hauteur de ses moyens moom mu ngi jàppale askan bi ci lu mu mane au niveau national comme au niveau international te ci yoon boobu la ñu woo suñu mentor Moustapha Junior Thiam fii si commune bu Akungona ci département bu Nioro ku ne gis na aussi yëngatu yu mu fiy def waaw moom amul budget nekkul maire nekkul leneen loo xam ne nii mën na dooleem may na ko mais bëgg-bëggam weesu na foofu mais dooleem fi mu toll nii ku ne gis na ne mu ngi def lépp lu mu mën ci commune bu Akungona depuis bi mu dalee politique ba léegi ku xam mu Moustapha Junior Thiam xam na nitu terrain la ku xam Moustapha Junior Thiam xam ne ku mën a jàppale askanam la kuy déglu askanam la tamit te kuy fréquenté askanam la ndax euh, xam naa ne bu doon affaire mairie kese moo ñu tax a jug mm-hmm. yàggul dara jugee nañ fi yàlla def na lu mu def te nangu nañu ko ndax kuy wuuti mooy ñàkk te bi ñu ñàkkee dañoo sant yàlla bi ñu ñàkkee dañoo sant yàlla bu baax a baax a baax mais tamit taxul ñu arrêté suñuy activité politique taxul aussi ñu bàyyi dimbale ki ñu doon dimbalee askan bi ndax récemment rek gis ngeen nombre de finale yi ñu fi football resement gis ngeen don bi mu defal waa Mbaaco mhm. te ci kàddum la moo ko waxoon def na ko te ku ne xam na ne Moustapha Junior Thiam lépp lu mu wax fi ci commune bu Wakuna mhm. matali na ko ak yeneen engagement yi nga xam ne jël na ko mu ngi ci te incha allah dina ko def ndax moom nitu kàddu la ok yaakaar naa tamit lu mu wax leer na te aussi am nañ loo xamante ni mën nañ ko ci témoin comme ni mu ko waxee bëri na seen activité yi nga xamante ni seen bii di Wack TV moom moo koy couvrir et wax dëgg fa yàlla tamit ñu ngi taxaw askan bi vraiment ba seen ba seen loxo yegg na fii nii si télé bi ñuy defee émission bi wax dëgg fa yàlla ñoom ñoom maanaam daal ñu ngi taxaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi d' accord léegi si moom beneen question bu may jàll moom moo nekk yaa ngi koy tudd euh, lu bari si émission bi moom moo nekk yow lan moo maam sa relation ak Moussa Wack Thiam lan la lan moo leen boole. waaw man xam nga politique man ku dem sama page Facebook avant man dama estimer la politique du président de la république Macky Sall ah, dama ko yàgg estimer mhm. mais à travers Moustapha Junior Thiam ci la engagé wu dugg ci politique mosuma milité ci benn partie ci moom laa jaaree milité ci partie ñu nekkoon ci partie bi ñuy wax AFP circonstance politique nag day am tey ñu ngi ci la S2D yoon naataange te biñ fay dem tamit demee wuñ fa génn comme ni ñu génnee ci parti bee mhm. moo ñu poussé ñu demaat ci SDD mais ñu ngi sant yàlla bu baax ndax lépp ci liggéeyal askan bi la lépp ci jëriñoo askan jëriñ askanu waa Koungheul la te gis nañ ne bi ñu fa duggee ba léegi wax dëgg fa yàlla ak bi ma dalee ànd ak Moustapha Junior Thiam ba léegi macha allah formation politique bi nga xam ne nii am nañ ko ñun jeunesse bi nga xam ne ànd nañoo ak moom yaakaar naa ne ñu bëri bëgg nañ ko te mënuñ ko am. dama lay dama lay wax rek keroog dama dama toog benn gaayen na ma yéen Moustapha Junior Thiam yéen a bokk commune ma ne ko waaw mi ne ma yéen des chance bu ngeen am ñun buñ ko monoon a am ma ne ko lu xew mi ne ma ah yéen daal am ngeen formateur boo xam ne ci politique jàpp leen ko ma ne ko ah, ñun de lu ñu gis bépp ndaw bi nga xam ne ne ànd na ak Moustapha Junior Thiam ci politique am nga formation politique te loolu mu ngi ko donnoo ci le président Moustapha Niass bi nga xam ne moom la yàgg àndal ci politique mu nekk papam nekk deretam nekk léppam ba tey ji démb rek euh, macha allah ñu ngi mu ngi toog di ko defal ay kaamil dog kaamil di ko ñaanal euh, le président Moustapha Niasse nag ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool mu àndal war ndax aussi ku jëriñ Sénégal la donc euh, lu ñuy wax rek mag mat naa bàyyi si réew donc président Moustapha ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla may ko wër yàggal ko fi. d'accord c'est intéressant lu mu wax lu mu wax mais tamit si sa si sa question boobu noonu am na tamit leneen li nga xamante ni bëgg na la ko laaj moom moo nekk lan moo waral ko Euh, daal di de parti bi di S2D. waaw mooy li ma la wax rek. Hmm. politique moom à chaque fois que ñiy avancer rek circonstance yi mën na di ñëw quoi. te lu waral ñu génnee AFP yaakaar naa ne loolu képp ku dëkk ci commune waa Koungheul mën nga dëkk ci àdduna bi sax laay wax gis nga ko. circonstance su élection la woon loolu jàll na weesu na jaratul ñi si ñëwaat. parce que suñu suñu président Moustapha Niass hmm. euh, kilifa la ku ñu respecté la ku ñuy ñaanal la. te ki nga xam ne tamit suñu mentor Moustapha Junior Thiam ku mu respecté la di ko ñaanal parce que deretam la papam la te dafa jëriñ askan bi donc dafa jëriñ le président Macky Sall tey euh, politique le président Macky Sall tey bu yegsee fii ba tey ñuy gis président Moustapha Niass ci côtéem donc wax dëgg yàlla dañ koy sant di ko gërëm donc question boobu moom yaakaar naa du question boo xam ne dañ si nekk di débatre ndax lii jàll jàll na li ci kanam nañ ñaan mu gën te àndoon ñun ñëpp jàppalante ok suñu beneen question bi nga xamante ne moom laa lay laaj avant avant avant ma lay jox sama dernière question bu may tëjee moom moo nekk Akherbou naka nga gisee politique euh, boo euh, naka nga gisee politique commune bu Wack Ngouna waaw commune bu Wack Ngouna moom ku ne xam ne politique bi moom euh, comme dans tout toutes les communes rek politique moom lu may wax gars yi rek championnat la mbala compétition la rek ku ci nekk day wuuti rek waaye nañ ko def ci njëkk rafetal ci respect bañ di xuloo bañ di xeex bañ di saagwante extra ndax ñun yarewuñu noonu ci politique ku xam mu Moustapha Junior Thiam tey rek récemment dama toog nga ngéyeen ci euh, benn ngénte bu am foofu euh, sunu maas di ngénte foofu sunu morom la euh, paa yëpp toog di waxtaan macha allah ñuy seede fa seede bu am solo ne ñoom daal li ñu gis ci Moustapha Thiam politique am rafet na lool ndax mosuñ ko gis mu toog di wax lu ñaaw mbala muy xaste te ñun ñuy ànd ak moom aussi daf ñoo formé ci loolu parce que ñun à travers les statuts à travers les textes sur Facebook et cetera ku bind bëgg a attaqué mbala ngay saaga daf lay woo carrément téléphone ne la dindi ko modifier lii génneel lii génneel lii te loolu c'est une formation politique ñu ko ciy remercier bu baax ndax bu ñuy bu ñuy bu ñuy politique politique wuñ pour di saaga wande politique wuñ pour di xeexande extra extra mais fii yàlla moo fi nekk moom mooy joxe nguur donc heure bu jotee rek incha allah dinañ ko jot te ci loolu la ñuy continuer di luy di liggéey jege askan bi aussi déglu leen lépp lu ñu mën ci jàppale leen dinañ leen ko jàppale te lépp lu ñu mën aussi pour rafetal mhm. en tout cas ñun la s yoonu naataange ñu ngi woo suñu militant yëpp fépp fu mu mun a nekk dans la commune de waa Wakungono et ailleurs ñu rafetal xam ne politique jarul yenn yi ñun am nañu suñu projet xam nañu lu ñu bëgg am nañu fu ñu jëm te foofu la ñuy dem incha allah di ci woo képp ku nga xam ne nii aussi acteur nga prêt pour un développement durable. Mhm. léegi <laughs> lu mu wax bi aussi c'est c'est très intéressant quoi beneen question bu lay poser yan projet nga yan projet nga ñuy pral comme commune bu ak Ngouna ak Sénégal yéen ak seen président euh, yéen ak seen général di Souleymane Dia yan projet nga ñuy pral ñun waa Sénégal. waa xam nga tey dañoo nekk dans une coalition euh, qui s'appelle Benno Bokk Yaakaar dirigée par le président de la République son excellence le président Macky Sall ñun it suñu leader di le président Souleymane Ndiaye am benn loyauté bu importante bu parfaite bu sénégalais yëpp seede ci bët ne dafa am loyauté boobu noonu ndax président de la République bi mu demee ba Goudomp gouvernement bi yëpp fekk ko fa nee na Goudomp maa ngi leen di maa ngi maa ngi sant seen doom di Souleymane Ndiaye kon xam nga ne am na liggéey bu am solo bu mu def le président Souleymane Ndiaye ku ne xam ne aéroport Masseck euh, ma sekk njaay bu Saint-Louis moom moom moo ko tabax le sat bi passé ci lañ doon def mise en kii bi neuf donc ubbi nañ aéroport bi avion bi wàcc na te yaakaar naa il est le premier sénégalais je dirais même le premier noir ñu jox ko projet PRAS mu conduire ko ba livrer ko ba ay avion di fa wàcc donc kooku kuy jëriñ réew mi la projet bu ñu am nag yaakaar naa loolu dañ koy denc dañ koy denc comme ni ko suñu secrétaire général président Souleymane Ndiaye di waxee ndax tey dañoo nekk ci coalition ànd ak président de la République Macky Sall di liggéey pour euh, di liggéey dans l'unité pour une victoire écrasante ci les combats dans l'avenir donc projet wu SDD yoon naataange incha allah heure bu ñu ci yeggee Sénégal yi dinañ ko gis te yaakaar naa ne buñ ko exposé Sénégal yi euh, du jar leneen sax ñoom ñooy dawal seen bopp ñëpp ñëw te maintenant fi may wax ak yow nii sax yaakaar naa ne SDD ku ko xamul biir Sénégal bëriwul. fépp foo dem di nga fa fekk SDD te loolu li ko waral mooy liggéey li ko waral mooy euh, wàcc si terrain bi nga xam ne le secrétaire général président Souleymane Ndiaye mu ngi koy def li ko waral mooy responsable yi nga xam ne ñoo nekk dans les commune parce que commune boo mun a dem ci biir Sénégal am nañ fa représentant département boo mun a dem aussi am nañ fa représentant donc loolu liggéey bu organiser moo ñu ko may à travers des des des stratégies opérationnelles euh, ñu si remercier également suñu secrétaire général le président Souleymane Ndiaye acca gars yi donc c'était Arxibou Soxna euh, moo nekkoon tey suñu invité euh, si émission bi ñu naan seen matinal euh, ñu waxtaanee ay kàddu yu am njëriñ dafa am loo dafa am loo bëgg a ñëwaat. waaw waaw mm-hmm. xaw ma ndax boo paree di nga ma ci di nga ma ci question na sax parce que dama bëggoon tout juste rek di remercier ñi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk fii mu nekk le président Moussa Junior Dia moom remercier naa ko bu baax ndax ma ko remercier assez. ndax moom wax dëgg yàlla dafa représenté ci man représenté ci Wack Ngouna représenté ci Sénégal dans le parti SDD yoon naataange bu am solo euh, le secrétaire général président Souleymane Ndiaye aussi euh, am yéene bu mu am ci moom am fu mu ko teg euh, te wax dëgg yàlla gis nañ ko ndax le président Souleymane Ndiaye yàggul dara ñëw na fii Taïba Niassène wax dëgg yàlla ñu doon installé Ahmed Niass fii ci Taïba mu jógee woon gëm sa bopp le président Souleymane Ndiaye ne ko gëm yàlla moo gën a wóor gëm sa bopp te yaakaar naa ne effectivement moo gën a wóor euh, donc ñu koy ñu koy ñu koy jaajëfal bu baax moom it ci liggéey bopp ndax démb aussi gis ngeen dix tonnes bu mu diggee woon ak waa Thiamène wax dëgg yàlla yóbbu na ko donc nga xam ne ñun ñu ñu àndal ay nitu kàddu lañu nit ñoo xam ne lu ñu la wax euh, dañ koy def man de depuis ma ànd ak ñoom ba léegi gisuma lu ñu wax te defuñ ko te yéene bu ñu am nag moo ëpp yu ñuy wax te yàlla baax na di remercier euh, suñu leader yi nekk fii à, à compter notre coordinateur Aliou Keita di ko remercier bu baax di remercier la présidente Adja Thianar saako di remercier également suñu responsable des jeunes mon cher ami Ahmadou Sambou euh, moom it mu ngi def liggéey bu am solo ci côté ndaw ñi dans la commune et aussi dans le parti di ko bu baax di remercier son adjoint euh, Keba Touré chargé de communication Mamour Ndaw Aliou Thiam aussi de Thiamène ñu ngi koy remercier ñu ngi remercier daal euh, ñëpp Mambay Soxna de Ngéyeen Euh, di remercier aussi également waa Sabuya à travers Jules di ko remercier di remercier aussi également euh, waa Kër Amady Ngenaar à travers euh, Keba Sonko di remercier aussi Samaku à travers Ismaïla di remercier Ndiago aussi à travers ñoom Baye Ndaw ñoom Birane Seck ñoom Samba Seck di remercier également Abi Thiongane moom it nga xam ne aussi mooy sama adjointe moom it muy def liggéey bu am solo macha allah. waaw di remercier commune bi yëpp daal mën naa lim ñëpp dëkk boo dem mën naa la fa wax ñu ñu ñu représente parce que je suis le secrétaire politique des jeunes donc maa ngi remercier ñëpp ku ma tudd sa tur rek euh, bàyyil xel ne xel moo fatt ñoom Barham saw ñoom euh, Moustapha Dem ex maa ngi remercier waa Waaka TV mhm. ñoom it nga xam ne organe de presse boo xam ne la mhm. boo xam ne ñoom it ñi ngi def seen liggéey ni mu waree Euh, comme ni ko suñu mentor Moustapha Thiam di waxee toujours mhm. euh, boo xoolee tey presse dafa am lu mu représenté ci démocratie sénégalaise te aussi c'est important ngeen euh, porter l'éthique et la déontologie mhm. ngeen porter ko dara bañ leen jaral ba ngeen di dugg yenn affaires yi en tout cas seen liggéey rafet na département bi gis nañ ko commune bi gis na ko Sénégal yëpp gis nañ seen liggéey mhm. di remercier presse bi yëpp nag seen naataangu yi nekk si yeneen télé yi ñu ngi leen di remercier bu baax te di leen ñaanal yàlla aussi seen euh, seen euh, studio bi mu dem ba nekk studio bu mag ci biir Sénégal nekk dem ba nekk télé international te incha allah lépp luñ si man euh, dinañ si jàpp te aussi gis na ngeen le président Moustapha Junior Thiam aussi yéene bu mu am ci yéen te yaakaar naa ne incha allah dina ko matal donc nañ ñaan yàlla ñaanal ko yàlla aussi euh, yàlla may ko yokkute bu baax a baax ci ay promotion euh, may le président Souleymane Ndiaye aussi ay yokkute yu baax a baax ba lépp lu nga xam ne nii mbébét nañ ko dans la S2D mu nekk projet pour le Sénégal euh, ñu yegg au sommet jëriñoo ko ñun ñëpp ak askan bi yaay kon axi bu soxna la e ñu dalaloon ko fii suñu plateau si émission bu ñu naan seen matinal di waxtaan ak moom si parti bi nga xamante ni moom mooy s 2 et aussi mu jox ñu ay kàddu yi nga xamante ni rafet na te tegg na euh, ñu koy sant tamit di ko gërëm di leen jox dig daje incha allah ba beneen ñëw ak yeneen daanaan si télé bii di Wack merci beaucoup